Nous ngi leen di euh, ñëw une troisième édition di leen waxal résultat ak euh, classement poule A poule B national 1 le euh, championnat local bi lu fi jot a am semaine passée. donc sans plus tarder dañuy jàll ci poule A poule A gis nañ ne samedi le 18 juin donc ñu ngi doon football 19e journée lu ko de ni Gazelle de Kédougou Africa Promo Foot 0-0. Sade de Jean d'Arc deux buts partout Assur Étis Mboro un but à zéro AS Kaffrine Avenir de zéro but partout Agel de Aes AS Saloum gagné un but à zéro Yego moi, gagné Olympique Dangor, un but à zéro donc full fu pour A gis classement bi AGEL de Rufisque toujours Momo moo avec 41 points AS Kafrin, 31 points Yego 31 points Assur 30 points Jean d'Arc de Dakar 24 points Etix de Moro, 24 points Sad de Tcharoy, 22 points Gazelle de Kédougou 20 points AS Saloum 18 points Avenir de Mbake, 17 points Olympique d'Ongor, 17 17 points donc loolu moom mooy euh, classement wu national 1 poule poule A suñ jógee fofu dañuy dem ci poule B poule B dimanche 19 juin match fi fii dial euh, Université SC Darussalam Salam 1 but partout HLM de Dakar rsiof 3 buts à 0 en faveur de HLM de Dakar Étoile Lusitana Kayor Foot 0 but partout. US Rai. EG Fatik 2 buts à 0 en faveur de US Rai Olympique de Ice Kolda 0 buts partout. Askas Mo gagné Dombosco 2 buts à 2 buts à 1 le classement bi HLM de Dakar moom moo avec 37 points Dombosco 34 points Olympique de Ziguinchor 32 points Kayor Foot 28 points Université SC 27 points. RSIOF 26 points, Étoile Lusitana 24 points, US 22 points, EG Fatik 21 points, Ascolda 19 points, ASCAS 19 points ak Daru Salam 18 points donc il nañ venir ne Salam ak ASCAS ñoo donc en bas du podium Il y yaakaar 20 e journée

un mom de raw gi ba premier té buñ won A national 1 euh, ben monté Agel de Rufisque monté parce que instant bi point yu fa dess pour a ñëw raw ku de euh, Agel de Agel de Rufisque donc Agel de Rufisque instant championnat national 1 poule poule A. léegi nag AS Kaffrine bu nga xam ne moom moo doon concurrencé ak moom gis nañ ne mënatu ko dab parce que dafa am ay points yu nga xamante ni moom moo des te points yooyu noonu même bu ko AS Kaffrine amoon ak bu ko fekkoon ne gagné na matcham yépp yu ko dese même bu ko AGEL de Rufisque euh, pertoon ay matcham avec ah ben, AGEL de Rufisque jël na premier ba pare donc foofu noonu lu ñuy wax mooy euh, AGEL de Rufisque matcham yi di ñëw yaakaar naa ne moom dina ko fubal avec essence donc AS Kaffrine nag fi mu nekk lu mu war a def mooy jéem a fexe jël deuxième pour mun a terminer championnat en beauté peut-être am na yeneen surprise yu nga xam ne ni bokk na ci affaire bi te peut-être dinañ ko dinañ ko am bu en cas de parce que tournoi Ousmane Tanordien muy mu te yakarna tournoi Ousmane Tanordien nek na aussi tournoi bu am solo euh, te nenañ fofu les 5 premiers euh, donc dinañ ko mëna participer donc buñ joggé fofu sans plus tarder dañuy dem euh, si euh ñu koy Coupe du Sénégal en petite catégorie junior et cadet gis nañ ne fofu match yi jeex parce que gis nañ ne diggante génération foot ak jambar donc en catégorie en catégorie junior ñoom ñoo doon jongante génération foot moom am dam 4 buts à 0 si kaw euh, génération foot aussi en catégorie cadette gis nañ ne aussi gagné na ku ñuy wax also donc par 3 buts à 0 kon gis nañ ne foofu noonu génération foot vraiment en petite catégorie euh, jël na ndam li en coupe du Sénégal en catégorie cadette euh, aussi en catégorie junior donc foofu noonu ñu ngi leen di jaajëfal di leen parce que gis nañ ne liggéey bu ñu def solo foofu lu muy wane rek mooy gis nañ ne en petite catégorie bu fekkee ne yow yaa compétir wala yaa ngi jongante te fekk ne am na benn def bien avant gis yow da ngay am avance bu nga vraiment nekk avance bu nga xam parce que catégorie catégorie bi foofu ay les ñoo fa nga ne ay moyen de de 18 ans te yaakaar naa ne bu ñu waxee xale foofu lañ donc ngi ay ndaw nga catégorie ñu ramassé euh, coupe vraiment champion euh, coupe du Sénégal en catégorie junior et cadette donc nous ngi aussi fofu école de foot donc école de foot au niveau national de jaajëfal con donc gis nañ ne CONEFS fofu nono def na am solo parce que CONEFS mooy euh, madame euh, association bu nga xam ni coordination euh, nationale des écoles de football bu nga xamné ni vraiment liggéey bu muy def amna solo trop parce que gis nañ né génération foot muy jàmbaar seen joueurs yi nga xamné ñom ñoom ñoo nekk foofu noonu ñu ngi leen puiser au niveau des écoles de football. te gis nañ né chaque année génération foot ak jàmbaar dañuy dugg di def recruter au niveau des écoles de football ay journée yu nga xamné yu nga xamné journée de détection la tay xalé yoy noonu ñu réunir fofu noonu yaakaar naa ñoom ñoo nekk les meilleurs parce que li rek daf ko woné en catégorie junior et en catégorie cadette ñom ñoo dem finale vraiment jël raw gàddu gi voilà donc bu ñu fofu dañuy dem sans plus tarder si euh, euh, manam final en catégorie senior donc fofu non étoile Lusitana mom moy dem moy équipe bu nga xamné mu ngi nek national 1 donc vraiment loolu euh, avancement bu mag la moom war a jongante finale ak kuñu kazasport wax Casas Casa Stade Lat bu Thiès donc yaakaar naa ne final bi gars yi ñu si préparatif yi te gis nañ ne aussi euh, final bi jeu dina am vraiment football dina am euh, ñu ngi jaay biir yi foofu au niveau de euh, euh depuis depuis longtemps